jooy nit ku baax ku fi jóge lu war la fàttaliku ko ak seede ay jikkoom yu rafet ak ay jëfam doone lu mënta ñàkk waaye sargal ko itam ci ab liggéeyam lu sunu boroom di bëgg la tey la jeune poète mooy sargale imaam Seydina Gaye juróom ñaar fukk ak juróom-ñaar fukk ak ñetti at yi mu dund ci liggéeyal boromam bàyyi ko fi bésub talaata juróom-ñetti fan ci maama koor atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak ñett tolloog 11 janvier 2022 yàl na ko boroom bi nangu te njéggalam ci imaam seydina ay baayam ak imaamam Marsiya Imaam Seydina yaay buur nangu nan sa dogal toroxlu nan di la sant ak yaa di jëli moo buur bu bindab laram te kenn yëgul dama ni buy jël du tàggu mi ndeef te ku ko xul yàllaa fi nekkoon bi leen nekkul di buur di axat te bés du ñàkk mu delok wéet ga moo di kamal càppaacolee fëri buur du ken te ken du moom subhaanahullahu buur dooleem jaraw na misaal fele tax mu amal muhammadan mu di jaam kenn fekkewul moom ma te len na muhammadun dafa yag ak yalla xam ko bu wér borom bi sopp ko jël lepp may ko rof ko ngene yonent bi doon durratul baydaa képp ku am ab cër ci moom la bawoo ku jàll moo la xaja borom bi xëy di amal ci baatu kun ak soppa ahmadu jël nit fal ko sedda ko njël muhammadun lu mu rëy rëy jaam la donga ci moom ku dul yoneen mat la wax lii xam ko daa jafewul yaakaar mi ndeef warta tax nga jiiñ ko yàlla te sax yaakaar ku dul yàlla buur du jaadu bàyyi ko xel yàlla fi nekk ku dul buur yàlla jaam lan yow mooy def di di folli saa su nekk di fal lu jaamu ko mooy sun cër ba tax mu yebal ci nun nen ya ñu nuy jaarloo ci yoon wa ajal wéetal ka tënku ci moom ak jooxe ay ndigalam fu ab yonen feeñe lay doon yoon wa muy taxawal tawhid gurus semua waral nuuxin nitam wa nasakh tufan baray len baray domam je toog ndigamul tawxid tax sunu mam ibrahima beddi nitam bantal taal ba sóob ka ca muy sabba di santa jële tawhid tax jamme jël alwah ya sànni ko ker ba yu taxee ñuy jaamu nak wa di xul tawhid la yalla téye aysa be sukuyuba ndax yow la mbamana la yaanu amal tawxiida tax ahmadul muxtaaru woote ba woy buur yàlla woowaat ko muy taal taal ba ñépp a jëfal fu ab yónneen jaar ba lépp cag noon ba xëy ni daret ngir fàtteloo nit ñi kii leen yor ki leen di defal xeejam ba muy xeexe mooy ak réer ni jàmbu xamul buy xëy ci ngam bala muy gontal ñu tas la mu jal ku yittewoo di xamal jàmm booba noonu na la ci bépp boor te du dañ di jéem a fay li nga taal ay ngal la yow jambi ngey jo xantu yalla jogal ngir sakku xam ta nga bena ni fibel, jaam ñu fi beel nugas yoo tabal kenn dem bar sax ñu gas ba mu xoot tabal ca de rek wor ni xel lolen fi jurti di yafal lolen fi wut di dajal loo fi sos di reyal de betalen na saxal gu ki mak sëriñ ak nongom ba ken du fi dess gor ak jigéen yaaram say ku mat le mu fel Febar taxul mu jege ak wér taxul mu sori ku xey xamoo di nga yendal bay xalaatati njël bu deeru soon kenn kon yonneen bi toog fi di beel te kon mu bàyyi ko ak soppeem yu baax yamu jël dunia du kër ku mu kar lay wër ba dëj ko ci kër roof kay nelaw ba mu xëy deeyee ko muy lewetal moo dunda goo xam ni buy jeex kenn du tàggu borom te saa su nekk mu ruus ndax jar daw di dajal ndax jar na tooñ sa borom ndax jar na wor sa morom ndax jar na jaay sa ngor ak sa diine waji wax ku ñaka doole te man togn war na moytu ku am Katan te sam waxam te no dëkkee rafeta kon jambo am xel bu yewo war na sentu kero bu wër sa gam wa jeex mu jublu bur bi ko jël ñu wër ka bammel ba kuy soppem ba bayiko dem mu wet pax ma ku li da danga xamako ku yor bëggu jël itam tay pax ma modi sa kër wet ngay tëddee ñepp dem te duñ ñewaat di la xol malaaka yalla yu reey te rek lu ñew gané la bu xàmmewul sa borom seen yar ya tambali dal ko man di doon len rek moy tax nga ci kéro moy xam borom kursi yu mi la amal imma da ngay sax ci leer ak may yu reey jëmale bés penca mbaa dem ak tiitaange ngay far yow mii di sàggane jaamu xantu yàlla keroog ngay xam ni loo am te doonul yàlla dinga ko layal yow mi dëkkeewul di jal keroog nga xam ni lu waaye di wut lu dul ki ko moom reccoom ëllëg soriwul ku boddi woon ñi mu am tey lenn mooy mébétam mooy delluwaat rafetal yow mi fi des na nga dal ñu wal ca bufte ba ñu wal ca bufte ba mi ndéef yépp a jóg di fa xas seen bopp yay wuti foofa ñuy layoo di jubal cey bes ba cey bes ba raglu na ñuy door ñi di gaddu ñu ne ñi far ñu leen di bawah, ñi ñàkk gët ya di xul ñi man di far di tërëf ñi soppi seen melokaan te ken du tal sa moroom ku nekk naa lu ma dal tàngaay wa tàmbali cey maa yem bi lépp taxawaay lëndëm gatar ñépp a tiit di xulli gët ya di xool yàggaayu ya waral ñuy seet ku fay ñeme jokk wax ak borom bi mu jeexal tiis wi moo di jëli jahannamay min def yépp mu jaragal ñu seet yonen ya mu rango mayya ak yamu sol kérok la yonen di temp ak tar ba ñepp deggal dem ñaan borom mu tin ko atte ñepp mën dal ñu tambalé atté cey bes bo ba jarna xalaat lu way di def bu ko sorul xel mo wayagul bisu rabante ba marwa yu xey dekk di jep lu way di nëbb mu feñ li loo ko doyul ko andalon ci dunya kero fu mu jëm nga ànd ak moom na ngay seet ñi nga dénk sa xol keroog la ñëpp di xam kuy Moustapha ak ñi mu fal keroog la ñëpp di ñee xeetam wu rëy wi nga neel bas bu leefar tegu ñuy peesee karaj la di seet nees tuuti téere ya naaw te kuy mbindeef di nga jël ñu gàll yoonu siraar ca kaw jahannama muy yëngoo ko xaacu di xaar ku daanu ak ku ñu fel yem na siraat sew na booleeg ñëw yoon wa sori nan teel a muy ngóor di fay jàllee te gën ko bëggal ginnaaw siraat déeg ba ñëw muy ndokkalante di bég ku naan ca ndox ma tërëf ndax mbégte maak ni mu mel dég booba lay ñaan dajee ki yàlla jël si fi tey bàyyi Seydina Gaye mi jaayoon lépp ngir rafetal bañ ne ki doon doon saxiir Gaye doon na gën ci jikkoom moo génn àdduna aw tiis far na muur sunu xol ñi naa du moom mënta dem ñiy tudde yàlla ca kaw rangoon ya sar xol ya diis ndax ñàkk mbër mu kamaal xabaar ba jolli ku nekkay ñaan di yéen ki nu moom te rekk a wóor te du maslaa kenn bàyyi ko xel bésub talaata la dem xaa un ci weer wañu jël bàyyi Babacar ati maam say naa la am yu kamaal ñu xëy di waajal ki waajoon bés bu ñuy taxawal di seede ay melokaanam say di day ku matal bàyyi Mamadul Amin ak rakkam ja tiim ko jullee bis boobu rek lañ taxaw te Seydina julliwul mbooloo ma daj na keroog mag ñaak xaleel ya taxaw di bàkk yàlla ca kaw ak nangu bépp dogal soppam ya bàyyi ci bi sëy naak may sañoo ko dugal ca pax ma wuufal ka bàyyam sëy di am na ngeneen te ñàkk na mbër mu fonkoon yàlla ak yonenam ku yiw te sell te muñ te maanu man rafetal te ñàkk na mbër mi doon noon bàyyi sax taxawoon ci sàmm miiras di fonkoon bàyyi ba fonk ndigal ñak ñàkkanan sa nga pir ku xam ta xol ba woyof ku am teranga di gor ku sam man yewenal wutal na tay mbër ni mom ku ñëpp seede jikkoom libas mi mu mu wek ko baye ko xel imam sulayman mu bax may jël cëram ba cëral libas baye bàyyi beek yembal teral ko acal imam sulayman da ngay gor piir te ñak ki ñaan wutoo dul yalla togal tawu leer yembal imam libas no ngi ni di yeeslu ak di la ñaanal yàlla taawu la sàllaawu moo di buur bi la fal xamoo lu dul jàng ak daan doole boobu ba tey tey ma yu rëy ca maam ji biilu yaay ki ko jël ne yàlla taawi safal te julli salmalati ci Mustapha te yaram mbaay seydi gën ko teral ashaaru salir le jeune